nous sommes très heureux, l'Union européenne, de pouvoir contribuer à l'effort euh, du Sénégal sur toutes les questions qui concernent euh, l'action pour euh, lutter contre le changement climatique et protéger l'environnement et toutes les ressources de la planète. Nous sommes particulièrement heureuses de pouvoir être associés à, à ce, match aujourd'hui. C'est une compétition interscolaire qui réunit euh, les écoles de 32, euh, les, élèves de 32 écoles brillantes euh, de, de, Pékin, Dakar, Euh, et nous les accompagnons dans cet échange de, connaissances sur toutes les questions d'environnement. Nous sommes bien sûr intéressés parce que des actions comme celle-ci améliorent la connaissance, la sensibilisation de ces élèves, mais aussi à travers eux, de leur famille, de leur quartier, de leur communauté. Et parce que euh, pour montrer que toutes les actions comptent, il y a des actions euh, très sérieuses et il y a des actions qui sont un peu plus ludiques, qui euh, amènent l'amusement et l'enthousiasme. Et à travers cette action d'aujourd'hui, je crois que voilà, nous montrons que chacun peut faire quelque chose et que beaucoup de gens sont mobilisés aujourd'hui et demain. Et vous avez écouté les élèves ah je, les trouve très doués. Hein. Moi, je ne suis pas sûre que je pourrais répondre à toutes les questions. Je trouve en plus que euh, sur la plupart des questions, surtout celles qui sont difficiles, ils ont cette euh, capacité de se concerter pour trouver la meilleure euh, solution, qui est exactement l'esprit que nous devons appliquer pour travailler ensemble à tous les niveaux sur les questions environnementales. Donc je crois que nous avons de très bons jeunes ambassadeurs sur les questions climatiques et environnementales, des, combattants pour le climat et pour la planète en devenir et qui vont certainement travailler tous les jours qui viennent euh, pour, euh, pour avancer sur euh, cette cause qui est aussi la leur. Le Sénégal n'est pas épargné justement par les la aussi. Quelles sont les recommandations que vous faites justement à ces autorités Les recommandations que nous faisons, c'est de continuer à maintenir le cap des mesures qui sont si importantes au niveau national, mais aussi au niveau local et en particulier au niveau des villes pour travailler à tous les niveaux euh, sur, ces problématiques. Le changement climatique nous concerne tous. La protection de l'environnement et des ressources naturelles est un impératif pour tous et il est très important, comme ils le font, euh, comme elles le font, que les autorités sénégalaises à tous les niveaux continuent d'intégrer cette dimension très importante dans les politiques publiques et qu'elles associent euh, pour ce faire les forces vives de la nation. Euh, la jeunesse, la société civile, les écoles, le corps enseignant. Je pense que c'est ainsi, avec une approche inclusive, que le plus long chemin sera parcouru et les actions les plus rapides seront mises en œuvre. d'abord euh, euh, européenne l'ambassadrice mi nga xamante ne bàyyi na yitteem yëpp ñëw tey ji ànd ak ñun ci lii nga xam ne moom mooy euh, compétition interscolaire yi ñuy def diggante Pikine Guédiawaye ak Dakar jël ay collège lu mot fanweer ak ñaar ci ay collège élèves yi fa nekk war a def ay compétition pour jangalé mais xamalé aussi li nga xamante mo wara war taxaway ku nekk dimbali ñu aussi participer ci sensibilisation yi ñu wara def ci population yi jëm ci wàllu euh, changement climatique ak effet yi nga xamé da koy am té ñun ñëpp gis nañu li ñu fi daloon en 2015 bi nga xamante ne muy caaro muy mbaaw la nga xamante na fa am ci géej gi nga xamne ne na ba ci kaw ba am ay kër yo xam sax jotoon nañ ci dem loolu lepp nak di effet wu changement climatique ci loolu motax projet bi taxaw Union européenne financer nañu ko ñu and ci ak ville de Guédiawaye ak commune de Pikine Nord di liggéey ci sensibiliser population surtout essentiellement ci li nga xam ne mooy taxawaay bi ñu war a am jëm ci changement climatique ak effet yi mu war a mën a jur donc loolu moom moo ñu indi woon fii tey jii nous doon def une séance de compétition avec les élèves des collèges yi nga ont visités. ñoom de la mer xam nga moment mom mom moy li nous wax sank jundor en 2015 muy loo xamante ne li ko indi moom mooy géej gi dafay mujj jóg bu jógee nag euh, kër yi nga xam ne dañoo jege tefes lool dina am euh, yenn saa yi lu mel noonu ñëwek doole joo xam ne dafay yóbbaale ay kër je pense que loolu lépp li ñu ci war a def mooy nguur gi xam na ko war na mën a am ay barrage yu ñu war a mën a def ba nga xamante ne bi dina war a mën a atténuer loolu nga xam ne moo doon effet yi ñun aussi en tant que collectivité locale dinañu xool ak la commune de Thiaroye sur Euh, seet waxtaan ak ñoom seet ñu nit la mu mën a nekk suñu participation ci loolu balaa nguur gi ci boppam à travers les ministères concernés li nga xam ne moom lañ ci war a def muy seen taxawaay xam naa ne ñu ngi koy ñu ngi ciy jël ay dispositions waaye lii lépp pour wane ne euh, loo da doon loo xamante ne ñëpp ko partagé.

wa projet PICES bi xam nga dafa am ay axes yoo xamante ñoom ñoo ci ëpp solo ci bi ci gën a rëy muy sensibilisation te ci loolu tax na ñu taxawal ay comité ci biir euh, commune yi nga xam ne ñoo nekk Pikine ñoo nekk Guédiawaay yëpp taxawal nañ fa ay comité je pense que tout à l'heure dégg ngeen préfet wax ko ne arrondissement Dagoudane par exemple ci juróom-ñaari commune yi fi nekk benn dong moom mooy bi nga xam ne moo des pour ñu war ko taxawal noonu la ñu def aussi ci yeneen arrondissement yëpp noonu la ñu def biir Guédiawaay donc war ko mën a taxawal ci euh, suufu responsabilité wu maire commune yi nga xam ne c'est autour des maires la ñuy defar comité yooyu pour travailler un peu sensibilisation loolu nag sensibilisation bu ñu koy wax mooy xamal nit ñi waxtaan ak nit ñi diisoo ak ñoom won leen li nga xam ne moo war a doon seen taxawaay mais xamal leen aussi changement climatique li mu indi ci difficulté ci suñu biir dundin donc euh, sensibilisation yooyu dañ ci liggéey lu bëree bëri commencé nañ ko te sori nañ ci waye aussi yamuñu ci lolu amna ay euh, activité de nettoyage yo xamna ñu koy def defoon nañ ko fi déjà mbaaw mais defoon nañ ko encore récemment ambassadrice bi sax nga xam ne moo fi nekk actuellement teewoon na ca défendons defoon ko fële Thiaroye-sur-Mer def nañ ko aussi Malika défendre ko defaat Pikiness, ci fan yi di ñëw incha allah rabbi loolu pour participer pour wane ne euh, ay action le yoo xamante ne war nañ ko mais aussi def ay séminaire de formation yu bëri yoo xam ne def nañ ko jëmale ko ci autorité administrative yi pour nous amener ñu xam ne dañu war a impliqué wu ci loolu